waaw dañuy sant euh, yàlla d'abord ñu maa ñu teew ak euh, kattan ndax géej kër gi di ziar euh, kilifa kër gi ak ba ci suuf comme ni nga ko waxee defe naa sénégalais yëpp ñoo ko gisandoo mais ñun dañuy wax dañuy sant yàlla ndax coalition bi biñ ko tabaxee ñu taseeg élection locale ak législative ndax su nekkoon ne élection présidentielle danañu njuuy sénégalais yi te danañu yóbbu Sénégal ci guutu ndax ay nit du ñu tasi rek réew kenn du ko tabax ci ay mer wala ay jaxaso di à nekkul woon ànd sincère loolu jàngat bi ñu ci am la boobu la ci sénégalais yi am te ñun yàgg nañ ko wax ndax ñoom bi ñu yegsee assemblée nationale fekk ñu fa. Mm. Euh, gis nañ seen taxawaay gis nañ seen doxalin te it mun nañ ràññeele ànd bi boo xoolee euh, parti socialiste comme nu mu ko waxee. xam nañ ne parti boo xam ne dafa structuré euh, euh, am am formation politique bu dëgër boo xoolee euh, wàllu côté boobu PDS la bu ñu ne PDS nag ñun aussi dañ fa bokkoon parce que boo xoolee affaire ci biir PDS la bokk mhm. jógee donc parti la boo xam ne amoon am am dafa amoon formation nekk opposé wu mais opposé wu ci ci ci yoon donc nag boo xoolee nag bi ñu leen dajale bokkul woon parce que ñeneen ñi quand même bu ne xam na ne bu ñu yegsee ci la politique Sénégal changé ci lañ indi saaga ci lañ indi kast ci lañ indi leneen donc ñun xaaroon nañ li en tout cas man. Aliou bettu leen bettu ma wax dégg yàlla parce que xamoon naa ne ànd bi du ànd bu sincère euh, donc nii rek la mën a def. seen diggante ak taxaw ñu ngi gis ni que yéen a ngi gën a jegewoo. non ñun taxaw jëpp naa ne mosuñu sore sax politique la mais mm-hmm. eh, euh, taxaw euh, sénégalais lañ comme alliance pour la république comme yeneen parti yi ñun li ñu jàpp ci politique du noonoo du xastante du dóorante li ñu jàpp ci politique mooy mun nañu wuute ay gis-gis mais du tere à chaque fois waxtaan dafay am te loolu fii lañ ko fekk mm. loolu moo mës a nekk suñu taxawaay loolu moo nekk mës a nekk suñu taxawaay njiit mm. sorewuñ benn parti waxtaan la ñuy woote dialogue teg loo xam ne dafay jëriñ askan wi loolu mosuñu ci jóg